làmb 2.0. maaleykum mbokki internet yuy suivre euh, Sans Limites ñu ngi am mbégte contentement bu baax tey ñu ngi fi nga xamante ni mooy diwaanu Pikine euh, dibiteri restaurant bi nga xamante ni moom la Alaaji Mbay di def di def fi la nga xamante ni mooy euh, technopole ñu gis actuellement bâtiment bi dafa mel ni dafa arrêté ah, ñu ngi nii actuellement dogo mu ngi ne la di ñëw Alaaji Mbay ngi la di ñëw dogo mi ci mbéy saaxa yaa nga làmbaay mbokkum ndeyu Ama Baldé nga noonu tey moom lañuy ñuy dalal fii ci Sans Limites mais dogo ñu ngi siyaar dogo waaw bu wër. mais doo ci loolu ne. waaw kañ nga ñëw ah, dama ñëw rek dégg sa saal nekk nii sa kii bee nekk nii ma ne xaama jaar. waaw waaw ñëw nga sa kër de. ah waaw di la siyaar di la ñaanal. di la ñaanal jàmm di nuyu àdduna yëpp. Mm-hmm. di la bëggee. waaw fii loolu lañ fi programmé woon. ñu fi programmé woon def fi dibiteri restaurant. boo xamante ni day mucc ayib. Mm-hmm. waaw parce que Pikine mérité lu ne. waaw ñu nekk ay jeunes nag mhm. war góor góorgóorlu mhm. waaw mhm. mais boobu ba léegi dañoo am ay handicap yu ci nekk quoi ñu ngi taxaw boobu ba léegi di déglu waaw pour maire bi jox ñu accord pour ñu eggali suñu liggéey parce que maire bi fi nekkoon moo ñu ko joxoon léegi après bi régime ñëwee la ne nañ arrêté quoi arrêté nañ financé nañ suñuy propre moyen léegi ñu ngi ñaan pour ñu bàyyi ñu eggali suñu liggéey mais bu ñu ñëwaatee dafa doon loo xam dafa am solo ci Pikine tey Pikine il a besoin de ça boo xoolee technopole bi environnement bi nu mel tey nga nekk doomu Pikine def lu nekk Pikine tey est-ce que yoon la tey mën nañ tamit maire bi di arrêté liggéey bi yow yaa ngi ci dox ay jéego ak yoon. si si bi mu ko arrêté léegi mu def trois ans. waaw euh, loolu du intérêt kenn. du intérêt kenn même ki ko arrêté ci boppam monsieur le maire bi ko arrêté moom du intérêt am. comprendre nga parce que fii deux voies la xam nga euh, rue la avenue la boo xamante ne nii arène nationale la ngi ne leen xam nga mën nañ fi créer affaire yoo xamante ne nii ku ne dina ci gis boppam. minimum ñu jël ay employés yoo xamante ni fii lañ dëkk biir Pikine ak ku dëkk feneen ak feneen te yàlla dogal sa wërsëg nekk fi nga ñëw ñàq fi daan fi sa doole li nga fi am nga jël ko loolu lañ kenn ku ñu jox cent franc si ay dégg suñuy propre moyen lañ ko commencé ba egg si fii comprendre nga di ci góorlu ay million lañ jël def ko fii waaw kon xam nga waaw parce que Alaaji Mbaye ñun dañuy gis souvent yow euh, créer emploi daf la neex parce que dañuy fàttaliku ay jamono jëloon nga ay moto yu bëri jox ko ndaw ñi ñu liggéey waaw du du am sens pour ngay gis ñoo xamante nii yow war nga mën a du da nga leen di jàppale parce que mënoo leen jàppale yaa ñoom yéen yam ni muy toogee ni muy méttee ci ñoom loolu lay méttee ci yow des fois waaw mais solution résultat opération la ñu wax. est-ce que am na benn instant mën nga daje koo xamante nii boo ko waxee projet bi est-ce que mën na la jàppale bu la jàppalee yow ñu nekk sa ginnaaw nga jàppale leen parce que nekkul yow say propre moyen man bi may doo commencé cak-cak Sénégal bokk naa ci seen yi ko fi njëkk a def yaa ngi dégg jënd presque ay six moto jox ko samay copain ak sumay rak ñuy liggéey comprendre nga bi ñuy liggéeyee ba affaire bi am handicap moto yi am yoo xamante ni day commencé amee problème ñoom tamit xam nga ñu commencé xaw a bàyyeeku mënumaa sax dem ci ñoom récupérer samay moto dama mujjee bàyyi leen ak moto yi nekku ci nekk sa moto bi nga yor jëlal may naa la ko ci xol bu sedd buy yaa ngi dégg nga liggéey loo am nga yóbbu seen kër comprendre nga man ma eggali samay business quoi eggali samay projet yàlla baax na bi lañ toogaatee quelque temps après maire bi fi nekkoon Pape Gorgui Ndong mu wëndi au passage ne ma alaaji espace bi ma la délibéré la woon pour nga liggéey ba léegi defoo fa dara te am na ñeneen ñu ko bëgg boo liggéeyul investir oo damay jox keneen mu investir ci laa jëlee samay moyen essient yi góor góorgóorlu ba def lii waa pour def restaurant dama amoon sax ñaari ñaari ñaari option laa amoon dama ne damay def salle musculation ñii ne ma non defal restaurant dibiteri yaa ngi pour guddi gi gars yi di mën nañoo fii di fréquenter yaa ngi dégg parce que mooy loolu quoi. dafa soxla soxla da soxla environnement boo xam ne ni gars yi di demee Dakar yem ko fi li nga xamante ni. ok parfaitement raison. Mhm. te fii dafa nekk milieu boo xam ne guddi gi même loolu bu fi amee day yokk sécurité fii. comprendre nga te doom Pikine moo ko def man ci laa xalaatee ni loolu pourquoi pas war na mun nekk comprendre nga jël sumay moyen investir def li ma bëgg a def lépp après régime bi ñëwaat nag moo ma na ma taxawal. te comme que borom càq du xeex ak borom baatu neen waaw te doole doxul jàmm ñoom ñoo mëpp doole man yi xaaral ma taxaw déglu leen. lan nga leen di wax ñoom. non pour ñu jàppale ma ma liggéey parce que du sama intérêt man rek. Mhm. même ñoom seen intérêt ñu ngi ci. parce que fii su ma fii liggéey. Euh, dina amal njëriñ maire bi amal njëriñ euh, jeunesse bi amal njëriñ sécurité bi yaa ngi dégg ci loo xamante ni xanaa même boo amul doole boo xeexee sax boo gisee sàcc di nga mën ne wuy sàccee waaw comprendre nga kon am na lu bëri loo xamante ni bu ko jeune di def nga jàppale ko dafa gën nga koy gàllankoor quoi waaw amul benn sens kon monsieur le maire Cheikh Diop maire de Pikine Ouest waa Pikine ñu lay wax lii parce que lii du waxu Alaaji Mbay waxu Pikine la parce que jeunesse Pikine ñoo soxla xëy ñoo soxla gont parce que doo xoolee tey lii bokk ci loo xam ne day créer emploi yow ak Mbay rek war ngeen mën a collaborer liggéey parce que lii lu am solo émission fa lañ koy tourné ñu dugg ci biir wala. non bu la neexee. parce que bu ah. moom foo toog baax la. foo toog baax la waaw foo toog neex ñu dugg ci biir. ñu jàll ci biir El Hadj Mbaye Dogo moo nekk noonu eh, Dogo Ama Balde ñu tourné ko nii. Dogo Dogo waaw ah, mais Dogo Sall kii nekk nii. waaw non fii nice fii waaw fii doon na loo xamante ni njëriñu yëpp la. Mm-hmm. njëriñu àdduna yëpp la bu nekkoon loo xamante ni lu ñu yàlla dogal ñu bàyyi ñu eggaleeg suñu sago waa xalaatoon nañ ci affaire yu doy waar yoo xamante ni Pikine ak képp ku wër Pikine ak képp koo xamante ni ci dëkk bi nga dëkk wala dëkkoo fi diñ ci gis sa bopp. incha allah parce que loolu daanaka message bi dina jàll incha allah bu ñu jugee fii ñu ni ci dox ay jéego parce que ñun ay doom Pikine lañ te dañoo bëgg jàmbaar la waa Pikine di wax te incha allah rabbi monsieur le maire ngi lay lancer message bu baax a baax di la wax nga xamante ni doomu Pikine moo koy taxawal fii keneen jugee te bu doon étranger ñu may ko ko mu def ko man je ne sais ce pays tamit parce que am na loo xamante ni il fallait que ñu wax ko mu jeex parce que duñ ko doon bañ a régime bu fi jóge ba ko nangul ñeneen ak ñeneen ak ñeneen tey étranger day jógee feneen ñëw xaalil ko hectare bu rëy jox ko mu liggéey tey doomu dëkk bi nekk fi di fi bay demul tukkiwul émigré wul toog fii di ba tey boo xoolee lavage bi nekk fii moo ko jël lu mat six personnes ñu ngi fay liggéey di am salaire yu baax am naa benn booy bu fay liggéey mu doon loo xamante ni Pikine ko soxla merci beaucoup Alaaji Mbaye Dogo dañuy commencé nag suñu waxtaan parce que lool benn entre la boo xamante ni dañ ko doon euh, wax ki nga xamante ni mooy le maire di ko lancer aussi message autorité yëpp dogo ñu ngi siyaaraat bu baax. waaw maa ngi lay siyaar sama rakk. sama xarit nit ku baax. waaw nga nekk ci waar di ci liggéey lu am solo. di nuy àdduna yëpp di sant yàlla di gërëm samay waajur di gërëm àdduna yëpp di baalu ñëpp àq comprendre nga di ñaanal àdduna Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg yaa ngi dégg di ñaanal sama sëriñ sëñ ay sabo yaa ngi dégg di jaale képp koo xamante ne nii rek o euh, murit nga képp koo xamante ni rek yaa ngi ci réew mi di la jaale sëñ Atex Mbàkke Fàllilu waaw di ko baax di kilifa goo xamante ni kenn du ko kenn mësu koo dégg ci dara luñ koy xeebee di ko jaale Maam Ibrahima Mbàkke di ko jaale sëñ Xaadim Mbàkke ay doomam comprendre nga di ko jaale Baye Galas Mbàkke doomam yaa ngi dégg di ko ñaanal baax ndax surtout sëñ doomu sëñ Fàllu moo wàññeeku tey waaw gis nga ni réew mi mel mm-hmm. waaw. sëñ Baara mag bi waxoon na ni sëñ Baara waxoon na ni ku bëggoon a gis Alaaji Fàllu boo ko gisul woon boo gisee sëñ. sëñ Ateex mel na ni gis nga sëñ fallu mm-hmm. waaw sëñ Baara njëkk waaw wax na loolu bu yàgg. Mm-hmm. waaw sëñ Ateex di ko baax borom njaareem borom Touba ñun këram njaareem dañ fay dem da doon dajeeg man sax di di di di reetaan. waaw ndax moom daf maa soppoon. yàlla xam na ko billaay wallaay xam nga waaw di ko ñaanal. Mbàkke Balla Isa waaw yàlla yàlla taas ci sa barke fi nga jëm yàlla na la gënal allahuma amin allahuma amin loolu entre parenthèse doon di ko jaale aussi man it dama ko fàtte ubbee parce que loolu doon na loo xam ne lu am solo waa Pikine gi yëpp ku leen xool xam ni suñ ateex lañ gëm alaaji Fàllu mbake la ñuy nooyee di ko jaale it Ama Balde bu baax a baax sa mbokk sa xarit di ko jaale ki nga xamante ni mooy euh, suñ ateex di ko jaale njabootu suñ afiye gi yëpp suñ Mamor Mbàkke Baye baar afiye ñëpp di leen jaale seen baay ji ju baax ji suñ ateex Mbàkke Fàllilu dogo bu ñu ñëwaatee tuuti sa carrière Mbay mën nañu bëri kenn dàkkaloo ko Sénégal lu tax nga ba lu tax nga wàññi bëri ba xaw ma da nga baax xaw ma nu mu demee noonu. waaw non xam nga buuba. Hmm. àdduna day laaj ben instant nga reculer pour mieux sauter. waaw. waaw arrière pour tëb lu sori. comprendre nga bëri aar la rek yow mi mën nga ko parce que ku dëkk Pikine wala nga dëkk ci banlieue bi mën nga bëre comprendre nga hmm. waaw mais dafa doon loo xamante nii boo ci nekkee am loo ko jàppee ba ci yàgg nga am loo ci gis loo xamante ni pourquoi pas yow mën nga ci jot comprendre nga yow da ngay xool nga jéem a changer méthode comprendre nga waaw doxee ni nga war a doxee ci kaw tamit promoteurs yi nga xamante ni ñooy tëgg làmb essient yi dégg di tëgg ku ne mm-hmm. précisément man damay jël sama sama sama accusé sama sama wax di ko di ko accusé Baye Ndiaye di ko ko wax moom parce que suma waay la comprendre nga suma waay la ndi ku baax la mm-hmm. mais man daf maa seetaan mm-hmm. waaw ci côté làmb Mhm. daf maa seetaan comprendre nga mhm. waaw parce que gis nañu adversaire yu bari yoo xam ne war naa mën a bëri ak ñoom bàyyi damay dem këram toogo moom ci saalam ñuy waxtaan mhm. yaa ngi dégg bi mu yoree bitig di jaay ay yére daf ma doon ràng ay yére ne ma demal jaay ba ñëw doog maa fay comprendre nga waaw fële ca Sandaga man ba may jug di testé si boobu gone jugul marché asalem dama doon jaay sama silet ma ba guddi ma def sama xaalis sama nafa dugg ci table yi tëdd ba fajar comprendre nga. Mm-hmm. bu ma gisee gars yi ku ci nekk di wax naan fii laa jaar fii laa jaar mm-hmm. maa leen gën a yéeme palmarès téeméeri junni yoon comprendre nga mm-hmm. seulement ko looloo tax waruma fuuy waruma réew souriante si yaay dégg di bëgg di bëgg a sama bopp te di jéem a kontaan parce que xam naa ni leneen loo fi jaay nit ñi lu dul loolu yàq nga ko comprendre nga. bàyyi ma koy nuyu au di nuyu Serigne Diop waaw. Serigne Diop xaritu Aziz Ndiaye di nuyu Aziz Ndiaye bu baax a baax comprendre nga bàyyi na ma tëgg bu ma tëggul fii ak cinq jours damay def déclaration bàyyi ko bàyyi làmb <laughs> non loolu du am ndax Baye Ndiaye day tëgg lii parce que ñun ñëpp dañuy ah, ah, lancé appel boobu parce que dañu soxla alaaji mbay ak ki nga xamante ni mooy Tapha Gueye de Tourbi xaa ñun ñëpp instant moom la moom la amateur yi bëgg parce que làmb làmb jànk la làmb dàq ko mais loolu foo ko déggee yow. loolu mu ngi toj dëkk bi même mi tey internet bi dama ko. mais loolu man fu ma romb ñu ne ma Alaaji Mbay yaag Tafa Gueye dégg seen combat dafa ñor. dafa ñor réew mi ko bëgg xaw ma nu mu demee noonu. te Baye Ndiaye rek ko dégg. non Baye yàgg naa dégg loolu. Mhm. Baye maa baay Baye Baye moom wax naa ko lu ne. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. nit ku baax la sama waay la. mais sa xarit da ngay am ci moom droit dama am ci moom droit. droit ba am ci moom man soxlawu ma pour di ñëw di ñaan ay ay di may maag alma. ma ce que yaa dégg am naa aar am naa bëre mu sama yaram dama ko koy jaay na ko jënd. da yaa ngi dégg. Mm-hmm. na ma tëgg ma bëri arène national bii kenn deewu fi. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. bu woo man naru ma woon sama àdduna. naru ma woon mës a bëre. yaa ngi dégg parce que man bëgguma woon ay dem. yaa ngi dégg ci ay sëriñ di wax ay pour daan ak yooyu. ay réer la ma doon def. mën a ak nekk mbër bokkul. man sama jikko du mbër. bëre daa nekk ci man rek. comprendre nga mais sama jikko. ak sama jëmm lépp amul daraay mbër na dama koy won ginnaaw di daw mu may dàq ji di ma téye làmb da ngay bëre par force mhm. moom làmb comprendre nga mhm. mais boo juddoo fi nga xamante ne nii milieu làmb la juddoo ko ñu falaay mhm. yaroo fa màggee fa aar boobu day nekk sa aar potentiel il faut nga def ko parce que lool ngay fekk ñëpp ko def loolu rek la comprendre nga. Alaaji Mbaye avant ngaa dugg ci li nga xamante ni mooy làmb parce que gis nañ ni da nga yàgg test mën na sa maam moo la yar. est-ce que mën nga a tamit sa diggante ak sa maam. waaw sama diggante ak sama maam moom ñu dëkk Pikine dëkk euh, ci sunu koñ koñ Fallaye sax laay wax xam nañ sama diggante ak maam sama maam mooy ki nga xamante ne nii boo laalee alaaji laal nga ko alaaji mooy xolam xam nga bu dee benn la la koy jox toog comprendre nga mook alaaji ñu jaar fu baree bari mook mook alaaji man sama maam dama jaar ak moom fu bari fu baree baree bari ci àdduna comprendre nga dama naan lu ma am sax te fekkeewu ko euh, du am sens pour man dinaa ko soxla parce que kuy dund soxla nga lijjanti sa bopp jëriñ say njaboot mais lépp lu ma am moom moo ci ci àdduna sama maam. Mhm. mu mhm. sama maam dama ju dama juddu sama papa ñàkkul woon dara mhm. yaa ngi dégg defal na ma lépp. mais dafa jël daf ma jël may ma sama maam ma nekk ak sama maam léegi parcours bi sama maam war a jaar yëpp man ak moom ñoo ànd jaar ci moo ma doon tegal bal teg fubal yaa ngi dégg jënd yére jënd dàll comprendre nga sama maam boobu dama doon toog ak moom ci néeg muy taw daf may bëmax ci miir bi xam nga néeg buy taw nii côté miir bi du tooy digg bu dee ardoise la wala zinc bu de dafa bënn digg bi mooy mooy ëpp lu muy senn daf ma doon bëmax ba ci miir bi jël mbaaj muur pour ma waaw pour ma nelaw moom mu tawte <laughs> xam nga man nekk ak moom sama maam boobu nga doon wax mm-hmm. mu metti trop maa ngi moom waaw mm-hmm. ngeen dund lu mel parce que mm. gis nañ ni booy wax ci moom dañ ci wax a xool te en plus dañu gis ni sa diggante ak saag parce que dañuy gis Alaaji Mbaye foog gis si Pikine ngeeg saagam non mais bu da question ma commencé ko da nga bàyyi ma ah, jeexal ko ah, nga da ma laaj wax ci point bu sensible boo xam man kooku laa am suma àdduna kooku su nekkul dara lu ñu xam lu ñuy tere la wala ma nekk dara loo xam dañ naan acam kooku grâce à moom la moo mën loo amul muñ ko yaa ngi dégg loo mën defal ku la tooñ boogu mënee bal baal ko koo mën a dimbali dimbali ko yaa ngi dégg ku xiif boo amee jox ko mu lekk loolu la ma jàngal moo tax man noonu laay doxee waa kay rëccu ma ci dara man rëccu ma dara dara dara sama àdduna amul lu ma rëccu amul lu ma méttitlu parce que man bu ñu nekkee tey man ak yow nga am ay milliards man boo moytuwul maa lay gën a bëgg sa réussite yàlla def na ma loolu. waaw parce que nattu la. nattu la man damay bëgg àdduna muy kul gars yi di am jàmm parce que fi nga dëkk juddoo fa yaroo fa li leen mën a teralee wala li nga leen mën a dóoree mm. mooy teral leen. du beneen leneen loo leen mën a mhm. defee lu leen saf comprendre nga sama maam jëriñ na ma lu nekk si àdduna lu nekk lu nekk lu nekk ban bés ngay xalaat sa diggante ak sa maam bés bi nga xam ne boo xalaatee rek amaana boo turu rangoñ sax dina doon lu sori si yow waaw mooy bi ma ko defaralee këram bi ma tojee këram defaral ko ko appartement am jël sept millions def ci bi ma ñëwee dugalaat ko ci néeg bi daf ne ma fii du sama néeg hmm? waaw daf ne xàmmeewul foofu quoi parce que foofu dafa rafet melu nii ma ne ko si sa néeg la waaw jour boobu dama xam ni moom kontaan na man kontaan naa te yàlla dogal na foofu noonu mu dugg noonu yàlla fa la ko jëlee fa gaañoo waaw kon bu dee benn geste bu rafet man ak moom dund nañ ko am na lu ma ko fay tuuti ci lim ma defal mais du lépp waaw ay dem màkka ay yenu daw ak moom ba màkka yooyu yëpp xajoon na ci wa parce que man sama yaay dafa teel a gaañu man mayam 11 ans la sama yaay gaañu 2001. comprendre nga. Mm. sama yaay gaañu kon am na lu bari onze ans xaw ma treize ans waaw deux mille un la sama yaay gaañu kon te sama yaay nekku moon ak moom quoi yaruma woon mm-hmm. sama maam moo ma yar mm-hmm. kon bu fekkee jigéen jur na la ba pare teel laa woon ginnaaw dafa metti waaw man boo demoon naa ba su ma déggee nit wax yaay sax damay bëgg a jooy ndax damay xam yay yay dafa neex. e nga sentir ne yow mi jaaroo ci yooyu nga jékki-jékki am ay problème yoo xamante ne du xaalis du dara yaay rek nga mën a toogal mu sedd ñeneen ñëpp ku ci nekk di la bëggee ku intérêt am wala dara sa yaay rek moo lay recevoir waaw te yàlla tax te muy dëgg ci moom carrément ñu ci bëri buñ la lay dañ naa la soroon sama doom mais sa yaay bu lay yedd la sama doom nga kon mm-hmm. ñaar yooyu am na différence waaw dafa metti dafa metti nga juddu nekk giso màgg tuuti xam xam xamoo sa yaay gaañu si yaay dégg ngay dund loolu waaw man barke sëñ Tuubaa damay bégalaatee gars yi di kontaan may man may am yoo xam daf may metti mais li may sauver toujours mooy yàlla may ma tuuti ngam yàlla may na ma tuuti ngëm ba yaroo naa ci ay loxo yu doy waar ay loxo yoo ay loxo góor daal ay jàmbaar mm-hmm. waaw ku ci mel ni sama benn grand ma wunu ngoom allo gaañu na bokk na ci li ma gën a gën a def der bu woo Pikine fii man dem naa ba daaj mbaar di fanaan samay xarit a ngi fii. daaj mbaar mbaar def ci benn nag di yar nag bi foofu ci wet bi noonu falaay fanaan ci mbaar bi barki Cheikhul Khadim samay xarit a ngi fii Ousseynou Wade Assane Wade Elou mën nañ ko seede kon su may dégg gars di wax ay jaar jaar ay lii ay lii si ay dégg dama dul wax rek yu ci bari mm-hmm. mais yàlla baax na daal. mais si diggante ak saak parce que dañuy gis ni Alaaji Mbaye foofu fa même bu sañse woon lu gën a naay si Sénégal tamit da ciy teg saak lan waaw non xam nga bëgg-bëgg la rek te saak moom xam nga samay darab dama ko def saak waaw yi nga doon tëdd. non yen saay yi nga dox ba guddi nga dox ba guddi bëgg a tëdd xamoo foo war a tëdd nga nga nga nga rocc darab rek muuru foo jot muuru waaw maire Pikine bii karo yi da sedd guy par tàngaay dañ nañ fa fanaan hmm? waaw comprendre nga waaw saak moom. man dama dama dama dama yàgg bëgg ay téye ay saak parce que damay yor ay ay yére di ko def comprendre nga def comme ma def ci benn kilo wala benn jean su ma demee fenn am occasion wu sangu ma sangu rapidement changé xamal la taf taf après go quoi. mais mais mais tey bu ñëwaatee ba tey ci ak loolu ak boobu moment boobu nu Pikine tàngee taxul benn yoon nga dugg ci yoon banditisme wala dara. waaw non du banditisme Pikine boo fi juddoo yaroo fi waroo nekk bandit. waroo nekk bandi parce que bandi du dara lu ñàkk ay projet <laughs> non nekk bandi du dara lu ñàkk projet boo amee projet mënoo nekk bandi wala boo nekk bandi da ngay nekk bandi pour say projet lii laa bëgg a atteindre fii laa bëgg a egg mais du nekk bandi pour jàpp la jàmm la essient yi wala pour gaañ la wala pour nangu li nga yor non non loolu du bandi loolu tàppet la loolu loolu yaafus la waaw buuba am na lii dama koy ko gaañ ko pour jël ko waaw loolu xeetu ñàkk jom la waaw waaw pour man bandi amul quoi hmm. gars yi ñu ci bëri dañoo amul ay projet ku amul projet nag bu la neexee nga nekk bandi nga hmm. ah, dugg tey ci làmb mën nañ ñi nga def ci carrière bu am solo ah ñaata combat mën nañ ñi ci daal six combat la am trois victoire trois défaite <laughs> da maa ko tey defee ko noonu mais xawla su may ñëwaat ah. trois victoire fii laa laal eh. laal fee trois défaite te dañoo tegloo de damaa laal samay victoire yu tegloo yu neex ñëw laal samay défaite yu wow koŋ yu xeere yu tegloo toog ak moom léegi nag xam lu may def entraîné naa eh. est-ce eh. am combat jël Tapha Gueye 2 ko mu dee ci stade bi comprendre nga bi bokkul bokkul man ak Tapha bokkul loolu du lamb loolu du làmb waaw yàlla yàlla dogal mu taxaw rek te bugguma kenn tëggoo ko dul Baye non da koy tëgg. waaw Baye na tëgg combat bi waaw kay na tëgg làmb ji Ndiaye. sinon dina ñàkk xarit bu am solo. man xaritam laa bu ko amal njëriñ. Hmm. xam nga njëriñ du xaalis rek. Baye damay def car mission boo xam ne quatre heures du laa ko war a dox ma jug dajale élément yi dox ko. comprendre nga hmm. en revenu mënu ma di ñëw ci moom chaque jour di ko wax bàyyi lii wala lii est-ce que yaa man nekkuma foofu je suis noble. yaa ngi dégg hmm. làmb laa am na ma jàppale ci làmb na ma tëggal combat maag Tafa su ma daanoo bàyyi yaa ngi dégg su ma ko daanee continuer mu leer nañ ci waaw loolu laa signé man su ma daanoo maag tafage de dama fay jaare bàyyi làmb bàyyi waale stade arène nationale bàyyi xeetu làmb est-ce yaa ngi dégg ut site internet di protique di questionner su ma ko daanee continuer sama voie atteindre roi des arènes ilaha illallah lool lool lool dara du ko fay non Tafa Gueye dee day jël combat bi non loolu mënta ñàkk loolu mënta ñàkk loolu mënta parce que demande sociale Sénégal gi yëpp koy laaj. non Tapha Tapha Gueye 2 dafa bokk ci samay waay yi comprendre nga dañ doon ànd sax di entraîner mais làmb fi mu nekk business la boo xamante ne nii gars yi nekkatuñu ay noon quoi gars yi nekkatuñu ay noon gars yi ay xarit lañ ñoom ñëpp mbëri ay gaañ keus lañ dañoo bëggante bëggante laa de ay xarit lañ comprendre nga waaw pourquoi pas comme que ñi ñuy fay cent millions ñoo bëggante gën ñi nga xamante ni am amuñ ci dix millions comprendre nga nañ def lépp ci fer play Tapha Gueye dégg moom fi mu toll noonu sax war na mën a xam ne Aladji Mbaye mais saa dama ay dégg mu def buzz def ay affaire si ay dégg bëreeg man daan ma du ma gaañ si ay dégg ndànk après mu jeex loolu la Baye Ndiaye na tëgg lamb ji su ko tëggul baay dama koy bàyyi bàyyi alburaax supprimer numéro am bàyyi ko. non Baye Ndiaye da tëgg lamb sax li ma lay wax lamb ji de koy tëgg léegi léegi bu ñu ñëwaatee Aladji Mbaye ci sa dégg lan la maam dégg gi. galañ gi Aladji dégg gi ci ay kàddu dégg gi ci bàq Alaaji Mbaye loolu la. waa dégg boo gisee ñu naan la kii dafa dégg xam nga lu waral ñàkk stress boo amul stress lu ñëw da koy capter rak xam nga nii nii nii su ma nee la taas ba taas yoo xam nga ni kin moo ci topp. comprendre nga waaw loolu la nit ñi bu jël ay ay ay affaire di ko chargé seen bopp mm-hmm. lu ci bëri sénégalais yi ñu ngi def yoo xamante ni jaru ko àdduna jaru ko àdduna dafa éphémère dara éternelul amul lu fi continuer ku xool sa démb xool sa tey war a baax. Mhm. yaa ngi dégg mhm. ku xeeb sa bopp na yàlla defal la dara ci àdduna fekk yaa ngi dox di doxi say soxla li la yàlla jox bu la doyul yaa ngi doxi sa ñaari tànk boo demee Dantec wala nga dem Fann dugg réanimation wala nga dem hôpital Fann dugg pneumologie gis ay xale yu ndaw yoo xamante ne ay raakol lañ leen bënn pour ñu nooyee te gënoo leen nit da nga war a bégee nekk ci jàmm kiling fii lenn moo fi mën a ñàkk nit ñi sonn muy lekk ak ndox mi ñuy sangoo di ko naan mais tant que mu ngi fii am gars yi war a nekk ci jàmm bëggante du range yi du xaama yi échange yi dégg du pick-up yi mais bëggante au fond bu ñu la xoolee dina xam ne yow mi yaa ngi ci jàmm parce que da ngaa nayi da ngaa billi yaa ngi kul comprendre nga loolu mooy dégg ga ba pare yaroo ko ñu fàllaay yaroo kër day Jóob kase ma koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaare ajana yaa ngi dégg euh, koñu Fallaye Fallaye Balde foofu boo fa yaroo dégg dégg day am ci yow yoon waaw parce que ñun suñu kër booli sax buñ daanoo temps la ñuy def booli duñ daanu rek naan kang dañuy daanu naan keneen leneen leneen leneen leneen kin pram ta kin kin kin ndër nga booli noonu la ñuy daanoo nga xam ni booli yi ci temps lañ daanu daanu wuñu noonu rek pour yàq ndab yeeg yooyu noonu yaa ngi dégg waaw daanu temps la waaw kon yooyu yow da ngay mën a xam temps nekk ci temps noonu la demee. Mm. <laughs> d'accord mm. <laughs> bu ñu ñaatee si li nga wax muy kóllëre gi nga am parce que gis nañ ni nit kóllëre nit ko nga xam boo jàppee benn yoon rek jàpp nga sa diggante ak Ama Baldé. parce que tabaski yéen ñaar. waaw ah, Ama sama diggante ak moom loolu wax naa ko fu ne. làkk ko arab rek ma dese. xam naa dinaa waaw loolu sama diggante ak moom loolu. Ama suma deret la. suma deret la yaa ngi dégg suma waay la. comprendre nga ñu judd ci benn koñ man ak moom ak ñeneen ak ñeneen këpp sa baylaat yàlla ko yàlla Ifra Elu Assane Wade Ousseynou Wade yaa ngi dégg ñoom Pape Nambe ñi dëkk ci koñ bi yëpp jaawara mën ci Papa Ñang seexu yaa ngi dégg Del Piero comprendre nga ñu dëkk fa ñun ñëpp coppa bàyyi laay jóob yaa ngi dégg yaa ngi dégg pas à les policiers ñun ñëpp ñoo dëkk amul kenn koy jugee sa kër di dem këram di dox ay di passé ay fukki kër ay septième kër nga jot këram wala ay deuxième kër troisième kër nga jot këram ay quatrième kër cinquième kër nga jot këram même quartier ñun ak aman ak ama sunu kër yi benn kër la parcelle numéro deux mille deux cent quatre-vingt-trois lañ xaaj ci digg bi Fallaye moom lii Mame Mané moom lii comprendre nga. kon kooku ba ngeen juddoo ba la yéen a gisee kooku sa deret lay nekk waaw amatoo loo ciy wax lu dul yàlla na ko yàlla defal jàmm. Mhm. ci biir loolu mën nañ ni Ama nekk ci dynamique bu am solo nekk ci dynamique bu jóge ci ki nga xamante ni mooy Gris Bordeaux ñi naan Ama Baldé dafa waroon a daan Gris Bordeaux pour wane ni moom mooy xale waru ko woon dóor sax làmb faire décision médicale. waaw xam nga làmb lay mooy commencé te kenn xamu nu muy mujjee. benn ba pare sëriñ bi ngay dem mu lay ñaanal sax du la wax boo demee yàlla na ko mbot du la wax yàlla na ko rof galgal bi cerndi du la wax yàlla na nga ko cabaxal du la wax yàlla na nga ko plaqué du la wax yàlla na nga ko fàq mu raam du la wax yooyu yëpp danaan la yàlla na la yàlla may ndam te yàlla may na ko ndam waaw ak ndam li nu mu mënti ñëwee comprendre nga kon bu fekkee dañoo passé dimanche ñëw tey yàlla may ko ndam sant sunu borom la ñuy def parce que ñaari pied droit taxaw di xeex ku ne mën naa gaañ sa morom bu fekkee Ama Baldé yàlla sutural moom mu am ndam ci loolu waa ñu mënu lu sant yàlla ndax Ama kuy dem ak moom ci bëre tiituñu ko ku dem ak moom ci xeex tiituñu ko mais buñ ko waxee sénégalais yi duñ ko mën a comprendre instant yii nii mais fii le fur et à mesure ñuy dem dinañ gën a xam waaw. tey ci biir loolu ñu gis actuellement Ama Baldé Pikine gi yëpp booloo maanaam li ngeen pertoon ci dig seen digganteeg Modou Lo ngeen am ko ci ci ci euh, diggante ma Gris Bordeaux muy mobilisation bi exceptionnelle. waaw mobilisation bi di ci gërëm ama seen bu baax di ko ñaanal di ko ñaanal ndam li mu jógee nii jikko bu baax la yàlla defal ko jàmm di gërëm Boy Niang Boy Niang dégg nga lim leen di wax ama di leen ko wax ku wax ak Boy Niang même wax ji ngay dégg boo waxee ak ama mooy ñun ñaar ay frère lañ dañuy wax lu kenn yëgul barki démb rek ama taxaw na télé wax ko kon ñoom ñaar. ay seex lañu comprendre nga Boy Niang def geste boo xamante li marqué ci combat am bi marqué na ci ay point yu doy waar pour am am ndam comprendre nga marqué na ci ay point yu doy waar doy waar doy waar parce que le fait que mu bàyyi lépp ñëw yóbbu ama ba làmb ja est-ce que yaa ngi dégg soutenir ko ba am am ndam loolu dafa garaaw dafa nice waaw ñun tamit waa Pikine du ay fayante bor sax parce que ñun ñëpp benn lañ booy ñaa combat bi mu jëm muy moomu rek rek nañ jël combat bi yëy ko waaw bëgg combat bi gën ko ko bëgg moom parce que naa la dara de combat bu booy ñaa mu sa bëre ci àdduna combat bi moo ko ci gën a rek waaw man na ma déglu bu baax maa ngi ko koy wax booy ñaa ci li muy bëre ak li muy xeex combat bu mu mës a bëre ci àdduna combat bi moo ko ci gën a arrangé. moo ko ci gën a arrangé waaw moo ko ci gën a arrangé. boo Niang mën naa teg pied droit tàllal loxoom di jam rëg-rëg di def ay déplacement yu sew du sori du nekk trois pas deux pas lay nekk tegaat ko fi mu ko tegoon ba rëg-rëg ñëw mu recevoir ko daan ko. est-ce que recevoir rëg-rëg yomb ak poids bi mu yor. waa xam waa xam nga la moo tax recevoir rëg-rëg daan ko yomb na rëg-rëg bu fekkee da ngay bëre ak moom yaa ngi dégg di ko ñooxu ba pare di dool ay coups yoo xam ne irrégulière la pour mu jàpp la day yomb mais boo Niang xeexul irrégulière direct lay xeex. fu na yem rëg-rëg yem ma fa rëg-rëg foofu la ko war a yem hmm? waaw bu tàllee loxoom fu mu ne rëg-rëg taxawal fii bu ma song hmm. fii ngay yem rëg-rëg foofu la war a yem bokkul ak li Sa Thiès doon xeex rëg-rëg nañ ko bàyyi mu répété loolu Boy Niang hmm. waaw yàlla ko yàlla may ndam ci kaw ko Boy Niang la déglu parce que conseil am solo nga ko mooy lamb ji sax Boy Niang lamb yi ma laaj sama xalaat yëpp daa dem rek la daan amul sa wax bi ñu bëree non bi ñu bëree Garga Mbossé maa ngi nekk géej géeju guddi ma ne ko kii li gën a yomb mooy nga fàq ko mu ñëw nga wër ko nomba yaa ngi dégg làmb ji fa lay mujj yaa Garga Mbossé. mais Ama Baldé daan ba pare laaj Franc. Ama war na laaj Franc waaw làmb la tension la la am dafa bëgg indiwaat làmb démb. lamb léegi gars yi ko bëgg a moderniser rek bëgg koo rafetal ay duma tudd diw boo bëggee bëree buuba tuddoo buuba nooy bëree buuba gars yi ñoo war a delloo affaire fi mu nekkoon bàyyi affaire star bi ay duma tudd nit dama koy may buzz man maa ngi ne Tapha laa tudd. waaw yaa ngi dégg yooyu amul bës boo ko soxoree nit kañ ngay yëkkati nit may ko téeméer junni wala may ko un million comme que yow bës nga iñaane nit bës kii bu mu siiw koo iñaane nit bës noo koy mayee alal nooy fekkee mu am problème mu xar nga jëndal ko ko mhm. nooy fekkee ñu koy génnee location nga jëndal ko ko nga fayal ko ko nooy fekkee ay doom feebar njabootam feebar wala moom mu feebar maara day taali nga faj ko ki nga xamante ni coow nga ko iñaane a Ama Baldé rek rek waaw lamb yu neex la lamb yu neex la ama bu dem ba jëlee décision am ne Franc bëgg naa bëre ak moom. mais ci biir loolu dañu gis waa Pikine am ñenn ñu génn di di di di contre Ama Baldé naan warul jël Franc moo ko raw waru koo laaj kërëb kërëb. non Ama moo raw. Ama moo raw Franc lamb parce que Ama ñi gën a naqaree bëreel la bëreel daan leen nga lim def ci lamb néew na moroom yi ko fi def comprendre nga mais tey jii Franc tamit def na ay preuve am mm-hmm. pour Ama tourné bëreeg moom loolu tamit ñaawul. sport la te magante wuñu waaw mm. ah, vraiment nee na kii laaj magam day bëreeg yow loolu moo amoon pikin mm. balaa ngay bëreeg Balla Gaye 1 da ngay bëreeg baabo yi mm-hmm. loolu moo fi amoon mm-hmm. gars yi ñoo ko ray léegi ku ne taxaw sa koñ di ñoo di star mm-hmm. te estar amu fi Pikine ben star la mooy kan nongoloo ak man nañ barke Serigne Touba star ñoo ko fi doxee loxe wuñ ko fi ñaari star yi ñoo fi nekk mm. nongolo jëm jaala bi ci jaajëmaa ma nee na Fall yàlla ko yàlla xaare àjjana ak Alaaji Mbay ñaari stars yi ñoo fi am ñeneen ñëpp suñuy suñuy employé lañ dañ ñuy liggéeyal ba Pikine comprendre nga ama Eumeu Sène Boy Niang maa leen embauché ku ci nekk am booy bëre Eumeu Sène day recevoir mm-hmm. si yaay dégg bu la laaw nga xaru mu daan la mm-hmm. Boy Niang da xaar latéral droite mm-hmm. daan la ama ma koy pointé loo neuf ma koy pointé loo muy attaqué si yaay dégg alaaj tak capitaine bi waaw waaw di dugg ci biir tenel bi kon loolu la quoi kon jarul dara balaa nit di bëreeg Eumeu Sène na bëreeg Ama wala mu bëreeg Boy Niang doogu bëreeg Ama kon fi mu taxaw wax loolu c'est très vraiment parfaitement raison mu wax loolu yaa ngi dégg waaw man sax émission bee passé dama ne non non Ama warul wax estafam mooy wax mais instant yii nii Franc mbër la soxla na Franc dafa banque yorul xaalis instant yii nii. ñi naan Ama moo yorul taw. <laughs> Franc <laughs> parce que Franc dafa génn tontu. Franc ñoom sax suñu kër Modou Lo xam Modou Lo day dressé table. Ah. déggoo ah, ah, musuma dem këram Lagrosse mais dégg naa day dressé table nii dafa bëgg lekk. moo tax kay booy passé yëfu lay ne. ba day dee ren <laughs> looloo tax on a SAED loo ko jox mu bëre Modou Lo dafa bëgg lekk Modou Lo dégg naa table da ngay nekk ci kanja maafe bëy mbote. loolu lay lekkee dégg naa coppati. te buy jël dara nii tombé yow nga koy jël da lay dóor. mais sa copain Boucher am na combat de. yàlla yàlla may ndam. day door rëg-rëg ba muy bëgg a dee tey. Boucher ñu jooy di. dafa yóbbu laam dafa yóbbu dafa yóbbu gàllaaj dafa yóbbu doole. xam nga Boucher bu bëreeg ba pare maanaam moom dañuy bëre foofu. final suñu final foofu la MMA. loolu wax ni. loolu déggoo ko maa Boucher faa ñu laal foofu MMA. waaw waaw loolu mun loolu mën ta ñàkk. waaw ak dynamique yi. rëg rëg rëg rëg dañoo takk loxo yi tay du gis dara guddi nga seetaan combat bi buuse dina ko def lu metti <laughs> buuse nee na màggal gee tax mu jël avance. waaw baax màggal kay buuse xam da ci sonn buuse day sonn ci màggal yi. waaw day sonn day jënd ay nagam ak lu nekk. Uh-huh. waaw léegi nag bu amee combat ñun murid yi dañ koy yéene ndam ba pare man xaritam la. mu nekk koo xamante ni bu baax la sama waay la. yaa ngi dégg ki nga yemal ji ko tolloo moom ngor rek nga mën a àndal waaw maa moom ñoo defandoo nii jugandoo aussi yaa ngi dégg mm-hmm. ku nekk jaar sa yoon yaa ngi dégg ma koy ñaanal yàlla defal ko jàmm mu nekk nit ku baax ubbi na restaurant bu mag espoir dem nga fa lépp la am waaw lépp la am loolu sama ndam la man loolu sama ndam la parce que buuse man lu mu am maa ko am lu mu moom maako ko moom yaa ngi dégg waaw nit dimension bu lay doxee bu fekkee dafa bañ daa bañ a xaru nit bu bañee xaru wala mu bañ a gaañ boppam wala mu bañ xolam di metti day nangu ay dogalu doomu aadama parce que yàlla mooy xool li ko neex mu koy def ci doomu aadama loolu nag du question koy waxre rek koy dundo boo koy dund buñ la xoolee dañuy xam ne yow yaa ngi ci jàmm parce que da ngay kul buñ la tegee teg borom milliard dañuy yaakaar yow yaa milliard parce que tu es à man je suis à l'aise parce que yàlla boole na ma ak sama entourage yu baax may na ma soxna su baax suma ma yërëm comprendre nga soo xamante ni nii li coon sekk naan lu weesul coowal firaange mosoo bëgg ñuy werante waaw man ak moom mën nañoo jotee ci firaange mais mosu ñoo jote ci alal waaw te jaww ji mel noonu boo ko amee da nga koy téye waaw parce que fii àdduna lu ci bëri alal ko yàq mais koo xamante ni doo leen jote ci alal boo leen jotee fiiraange la wala nobel est-ce que yaa ngi dégg wala mbëggeel yooyu ku ne bëgg na ko ci sa jabar kon ma koy ñaanal maam jaara yàlla na ko yàlla defal jàmm may ko ay njaboot yu ko teral yaa ngi dégg parce que fi ñu jógee ak fi ñu moom xam na man xam naa maa ngi koy ñaanal bu baax a baax. Mhm. Pokola am combat démb moom ak ki nga xamante ni mooy Talfa ñu risque la. waaw du lu tax mu nekk risque Pokola xale la Talfa booy la tamit ñoom ñaar seen làmb mën naa ni dese naa sax ñor parce que loolu làmb milliard la ñoom ñaar ku ci nekk li ngay dégg ci ful xam nga ay làmb ya loo xamante ni nii euh, làmb àdduna soxla la mm-hmm. waaw Pokola sunu poulet man Pakola maa doon jàpp ci loxoom di ko yóbbu ba ci papaam papaam moo ma doon tegal ay tournoi Paka Lambaay ma koy jël daan ñëpp comprendre nga As Mbaye ma koy nuyu di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xaaree àjjana. Pakola Talfa jóge ci défaite est-ce que combat bi ci kan la ëpp ci ci ci Talfa la ëpp parce que Talfa moo jóge ci défaite ci moom la ëpp enjeu mais du Pakola tamit dina am ci moom enjeu parce que Pakola bëggul défaite waaw bëggul defet di ko ñaanal ndam. ndam lu sedd guy yaa ngi dégg parce que loolu mooy yoon waaw mais combat bala boo xamante ni ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk arrangé na la. tey euh, nga dégg Baye Ndiaye démb benn sortem bu mu génn jël ay kii wax ci waa seen CNG ni ñuy doxalee ci làmb actuellement ñu at ki nga xamante ni mooy Ada Fass man loolu déglu ko. démb dafa def sorte wax ci li nga xam ne mooy CNG quoi comme CNG yenn affaire yu ñuy def ci règlement yi nga xam te ne mu ngi ci làmb tey boo doon lancé message ak li def nañ ko Ada Fass ban message ngay lancé ñu suspendre ko un ñaanal yàlla na ko ndam li jig ba pare di ko ñaanal nañ ko baal loolu laa ko mën ñaanal. Mhm. maam gàllaaj yi ñuy xëppoo tamit ci làmb ji di ko fa indi. waaw xam nga jël sa xaalis dem ay dëkk ak dëkk tamit fay ay milion pour sa gàllaaj xam nga nga ñëw ba làmb ja doo ko def boo daanoo da nga naan sama gàllaaj la ma def ma ko mbër noonu lay man mbër noonu lay noonu lay xalaatee yaa ngi dégg moo tax lépp lu war ci làmb làmb boo déggee ñu naan la kii mu ngi màgg ci làmb xam nga lan la mooy fàtteetul dara dara du ko bett tamit loolu mooy màgg ci làmb de kii léegi dafa màgg ci làmb loolu lay tekki waaw parce que nga doon gis mbër yor dix bouteilles bu demee ci làmb ja topp ambiance yi ba trois yi lay utiliser. allo mbër alo waaw mbër ñu ngi saa Alaaji Mbay Dogo. Tapha Gueye 2. waaw. torop yow lan laa lay wooyee nga nekk ndox mi naan da ngay sangu. non sangu ma dafa entraîné. non man damay wuy ma sama combat ak yow la gars yi bëgg. man la Alaaji Mbay torop yi de xamee nga sama baat yàgg nga ma liggéey. non non en direct de. torop yi en direct. Baye Ndiaye moo ne nañ enregistré émission bi tegal ko ko mu tëgg combat bi jox la avance tey jox ma avance. bu fekkee nag da nga i ñaane waxal. man est-ce que bàyyi ma bëri tey si si at bi. lu da ngay bàyyi ah, tamit àdduna ah, li ma def kay bu rek. non mais def nga ay preuve def nga ay preuve te yoo xam ne yéene nañ la ko te yàlla na la jëkk yaa ngi dégg. alaaji bu la xaalis jaral bu loolu. na ma loolu xamal da xaalis jaral ma ko. Eh, ah, non làmb la. alaaji àdduna ñoo ko bëgg. Tapha Gueye Timza merde Tapha Gueye ñoo bëgg loolu. Eh, man ko xamal la soq lay jël soq ba man barke sëriñ Bamba soq lay bëri yow la ngay bëri la ngay bëri soq non yow comprendre moo tax non mënoo bëri soq de non mënoo bëri soq man ak yow ñooy bëri ba pare eh, boo ma daanee ma jox la mairie Pikine bi da nga may déglu doo ma daanee ma jox la mairie Pikine man su ma su ma la daanee jël xeer toj sa bopp xam nga yow yow sax xam xam naa li nga xam nga li ma mëne mais ba yow soq ba la non non ma ne yooyu saa ni dafa ñor. yaa ngi dégg te combat bi ay proposition yu métti da cee nekk. alaaji tey ngaa jël non non vraiment Diop 2. <laughs> Tapha Gueye 2 boo boo boo validé léegi léegi combat bi taxaw nga jot xaalis ma jot xaalis. xanaa nag ñaanee woo ma noonu. ah alaaji xamul wax ah, kenn yor say defet bëgg ma ko defet kenn du ma ko may defet. <laughs> yow maa lépp ay victoire nga ni ref de maa Boucher final la ñuy bëre dama koo daan mu daan ma ma daan wulli man jëluma revanche ci Boucher de dama koo daan dama ko duma daan ko ma ñëw làmb ja mar naan def ay affaire yàq sama làmb mu daan ma yaa ngi dégg man mu taxaw rek bëgg a bëre damaa lay bu fekkee li may bëre yow ay géej di kontaan ak yow moo bu bëggoo jël sama avance tamit garaawul waa non non si parce que yaay parce que def yoo xamante ni instant yi nii man a yow entraîné nañ fu ne yaa a yow day nañ fu nekk. waaw sa ñaari combat yi nga mujjee bëri yëpp yu ci bëri rek laa la jàppalewul yaa Papa Boy Djiné bii laa la jàppalewul bi ngay bëri Papa Boy Djiné ñaari combat yi nga mujjee bëri yëpp dama laa jàppale parce que daje nañ man a yow ñu bëre. waaw comme yaa ngi dégg man du ma fen yéen may déglu ma wax la lamb ji dafa toll foo xamante ne man am projet war ko égalité jox maa ko war sama bopp yaa ngi dégg yow sama frère nga suma waay nga yàgg nga may connaissance comprendre nga. nga jël ma ñu bëree yàqul la dara est-ce que yaa ngi dégg. mais <laughs> Tafa Gueye li nga a jël jël jël dogo. Ah, yow to ah, man yow ku bëreeg man ci ah? yow ma xam bu ma ma xam nga affaire. mais Tafa Gueye daa mel nga ragal dogo nu mu xam nga ni ku bëreeg man ci géej doo bëreeg man arène. ah xam nga lool waaw waaw. waaw. bu la xaalis jaral loolu. non du xaalis bi. alaaji. cinquante pour cent xaalis bi cinquante pour cent pour cent projet àdduna. est-ce que yaa ngi dégg ah, parce que bu ñu fayal duñ bëre mais il dafa gay man sama rakk dafa jóge ba Allemagne Aliou pour sama combat man ak yow. waaw est-ce que yaa ngi dégg. kan. dafa ba traité dàpp du Sénégal. non dama ne la wóor ku ne man a yow ñoo bokk ay nit ñoo bokk ay link. mais làmb dafa toll foo xamante ne nii. yaa ngi déggee ngeen mel sa coloré la sa xarit la Papa Boy Djiné bi nga mujjee bëreel keroog sa nit la da nga may déglu rek ma wax la da nga may déglu rek ma wax la xam nga la moo fi instant yii nii waaw. waaw loolu am na. loolu am na mais xeer wa ca diggu ngor faalewul ndoxum taw ndax noor day tooy nawet day tooy damaa ngay de il faut nga déglu ma. dama ne la dama ne la. man ak yow suñu xaritoo dagg na tant que bëre wuñu parce que man dama foo xamante ni non nga di waaw da ngay jël sa waay dafal naa ñoo ñëpp dinaa leen jël ñoo ñëpp dinaa leen jël mais man ak yow il ñu bëre te naa la wax dara de alaaji bi nga doon gis alaaji bi nga doon gis ngeen di daje alaaji bi nga doon gis ngeen di daje di waxtaan dem fu ñu daje comme que yéene wu ma fu ñu daje dañuy rayante fu ñu daje dañuy xeex parce sama man sama avenir instant ku taxaw ci diggan li ma soxla ma dagg sa loxo looloo xew ku taxaw sama digganteeg li ma soxla ma ma ma je te laisse partout waaw. waaw. ah ma xool keneen. barke Serigne Touba Mbacke nit ñi man lañ gën a bëgg yow. déedéet yéen kan. <laughs> ba léegi 17 ans laa am. di yow yaa man kon suba laay fer. boo amee 17 ans xanaa man suba laay fer. waaw maa dina félicité mais Baye Ndiaye dina la woo. non non dinañ Alaaji Mbaye kii Tafa Tafa Gueye. tur bi xaa. du bàyyi. non Sénégal ñoo ko bëgg. combat bi sama combat man ak Malick Naar. Ah. séeri Amina Poté ah. Amina Poté xam nga ni bëggul ku dul sëñ Saaliw ah. Malick Naar jëkkëram dafa bëgg sama combat ak Tafa Gueye 2 dégg nga ma de buuba Malick Naar borom États-Unis ki waali ki hmm. waali naan Malick Naar sama waaji wuy <laughs> Malick kenn sama waaji Malick Naar moom laa lay wax c'est daa bëgg combat bi Tafa Gueye 2 da mënu ko bañ a jël daa mel ni pareegul pour jël nekk li ngeen tase ci géej gee tax contact. waaw mais loolu lépp xëy bu waree am tamit dina am. parce que nit tamit du xëcc loo xamante ni ñëwagul. maa ngi sant yàlla. Mm-hmm. di julli ci yonent gërëm àdduna yëpp. yaa ngi dégg di gërëm papi yaa ngi dégg bu baax papi waaw borom euh, hôpital fan comprendre nga di ñaanal malade yi nekk hôpital Fann ak Dantec principal yalla yàlla fëgg seen bopp yëkkati leen. si ay dégg le nouveau gouvernement maa ngi leen di souhaiter mm. euh, bonne gouvernance ba pare di ñaanal Rama Macky mm. gouvernement bu fi mënti nekk na ko jàppale parce que femme sociale la ak ku mënti doon parce que waa Pikine fii majeure partie ku ci sonn da ngay jubal ci Rama Macky man sama xarit la mën naa ne benn xarit bu góor la muy man comprendre nga am fu ma teg ma am fu ma ko teg Rama Macky bëgg naa état bi jàppale ko bu baax parce que euh, femme sociale la te wéeruwul ci kenn yaa ngi dégg keroog sax maa ngi bi ñu bi bi seen gouvernement bi mu wàccee naan ko ramataan yi moom yoratoo yaa ngi dégg ndax boo nekkee ministre ba nekkatoo ko day xaw a métti waaw far yàlla am na sax luñ ko falaat ñoom Sonko Sonko am na lu ma ko falaat nii Rama Macky waaw kero bu ma demee ko ñoom Rama fekk ñu toog ñànk tàng ak duture laa xam ne état ndekete boo nekkatul ministre day métti waaw Rama Macky en tant que Rama Macky ma fekk muy lekk ñànk tàng ak duture naa ma alaaji yoroos juróom ma jënd ki masi ma ne ko Rama xorom laa am boo bëggee may <laughs> ñu ngi koy ñaanal yàlla ko yàlla. mais nguur gi dafa métti de. non nguur gi jeex dafa métti yow yow yow yëg ci étage wàcc rek dafa métti dëkkoon première dëkk ci suuf rek dafa métti waxuma laa nga nekkoon dara nekkatoo waa waaw rama nag foofu laa koy ñëwante waaw mais maa ngi koy ñaanal bu baax. mais noo gisee gouvernement bees bi ak seen taxawaay. gouvernement ci kenn yaa ngi dégg hmm. maa leen di ñaanal daal hmm. en tout cas daal social mu ngi xaw a wàññeeku dëkk bi tuuti hmm. waaw nañ yokk social yi parce que Sénégal dëkk la boo xamante ni kenn mënu koo teg ci ordre ci quatre jours waaw parce que dëkk la boo xamante dañoo xam partage dimbalante am ma may la mburu mburu ton laa yor daggal est-ce leen suñu waa gi añ ngeen ñëw añ yaa ngi dégg benn nduus mbuusu ndox ñu bokk ko cigarette si sax dañ koy bokk waa Sénégal kon Sénégal dëkk boo xamante ne partage partage di ci gërëm Thierno mba bu baax yaa ngi dégg di ko ñaanal yàlla na ko yàlla dooleel est-ce yaa dégg lafal ko cat may ko gudd fan di gërëm sama xarit Ousmane Thiam Dogo di gërëm Waly sek bu baax di gërëm sama papa Tafa Naar bu baax yaa ngi dégg di ñaanal sama papa bu baax yàlla na kaala gi ràpp est yaa ngi dégg ba yeneen kaala yeneen kaala ñëw ràppaat ndax dafa jóge màkk bayti laay comprendre nga waaw ndax papa atu Mbay la tudd waaw te màkk nag boo fa jógee demee ba ñëw dañ lay toftal alaaji fi mu ne sama papa sama turandoo la waaw ndax alaaji papa Mbay la ñuy wax comprendre nga ndax ñun moom aatu la tudd man mbay sama papa maa ñaanal bu baax yàlla may ko gudd fan may ko wér ndax man aatu mooy sama maam aatu hmm. mi nga doon dégg ñu naan aatu ma doon feeñ may sa tend daawur mbaay hmm. moom lañ tuddee sama papa coon oh. sekk woy ko waali woy ko déggoo naan aatu ma réeroon feeñ may sa tend daawur mbaay ki Sénégal doon xaar papa coon yegg si na ah. koo koy sama maam aatoo réeroon aatoo ngiwaat nii aatoo di gërëm suma rakk hmm. waaw suma deret suma ma lépp koo xamante ni nii sama rak la te fàttewul démb waaw Aliou borom Espagne borom borom Allemagne yaa ngi dégg su ma rak su ma xarit Aliou maa ngi koy gërëm bu baax yaa ngi dégg di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal xaritam yëpp yaa ngi dégg ñoom laat yaa ngi dégg maa ngi koy ñaanal Aliou sama rak la boo xam ne dafa maa bëggal boppam yaa ngi dégg bu nekkee Allemagne ak fu mu doon ci àdduna daf may Aliou nga ni Tafa Gueye 2 ak euh, Alaaji Mbaye bu bëggee ma ne jaru ñu koy fay man may jël sama xaalis mu wax ma lu mu bëgg man ma fay ko pour mu rek mu bëreeg Alaaji Mbaye ragaluñu loolu kon waxal ak Alaaji waxal ak Tafa du mu bëggee léegi léegi fu mu nekk ñu toog léegi dem fekk ko fa moo ñaar la bëgg ñu fay ko léegi mu jël combat bi mu ndax nga naan ay lii ak lii ay bro ay rek leel rek Bésquelo la làmb 2